cours de vacances yi suñu président amical étudiants yi ñoom ñoo ñëwoon mairie initié parce que tey moo ko waxee rek maire bu mu toogee yokk subvention étudiants yi étudiants yi tey il est de leur rôle ñu xool tamit naka la ñuy seen touche ci liggéey bi yaakaar naa bi ñu ñëwee teg nañ collaboration mooy cours de vacances yi IEF aussi jàppale nañ ci bu baax a baax ubbi nañ école yi te ñoom vraiment ñëw nañu ni ngi xëy de huit heures à une heure di jàngal yi loolu tamit dañ koy rafetlu a baax première phase la la woon dañ doon xool déwén incha yaatu maire yi jàpp na si parce que maire yëkkati na benn somme vraiment de de de un million ne leen lii de du fay du dara mais na ngeen ko jël si poosam effectivement pour que ñi def ko seen paas daal te ñoom dañoo defoon seen expression de besoin ñu ne bëgg nañ maire jàppale leen ci wàllu CREC te loolu tamit yaakaar na am na maire jàppale na leen ci CREC baax a baax di féliciter maire aussi parce que euh, c'est un jeune maire mu ñëw ñëw yokk subvention étudiants yi ba pare impliqué gars yi